propos euh, boo ko nekkee ministre des affaires étrangères hmm. moo yooyu sax même bu amoon waroo ko waxee noonu. puéril et ridicule. Hmm. waru ko woon sax waxee noonu parce que après sa bopp ngay tuutal. Hmm. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Aïssata Tall Sall frénésie bi mu nekkee c'est c'est terrible pour moom euh, comme Macky Sall gis nga ko les plus hautes organisation instance de défence des droits de l'homme muy le haut commissariat aux droits de l'homme moo génne un communiqué wax ci loo xamante ni ba Sénégal di Sénégal ba tey ba tey musu koo génne te kooku c'est une instance des Nations Unies bala moo génne dara da koy natt sur le plan diplomatique xool lan la mën a indi comme coow. Mhm. parce que pays africain yi bul jàpp ni Nations Unies dafay jekki-jekki parce que danaan yii su ma laalee ñu gis nga toujours ñun ñun mais bi mu ko génnee moo la doon wane ni y avait des éléments sérieux mu ne carrément Sénégal ba ñu commencé di faat ay bakkan ci maintien de l'ordre ay manifestation foofu la ñu wàccee seen yoon dugg nañ ci leneen wax na nervi yi mhm. wax na coupure journaux yi mhm. euh, coupure Walfadjri mhm. arrestation journaliste ak arrestation détenu politique lépp la ramassé kooku au commissariat aux droits de waa UNICEF ak organisme yi nga xam ne ñooy défendre xale yi daal ni police xale yi ngay jël di leen def bouclier bu xeex amee nga teg leen ci kanam pour ñu bu ñu bañ a sànni xeer nga teg leen def leen bouclier humain dindi loolu. Mhm. kooku UNICEF moo ko wax. du waa Pastef mhm. du waa opposition bi. Euh, organisation boo xam ni quand même kii africain des droits de l'homme biir union africaine la ne génn commun commun euh, communiqué pareil dans le même sillage. Mhm. lan la Juan Juan Branco donc c'est vraiment cerise sur le gâteau. bu leen fàtte ni affaire bi dure depuis deux mille vingt et man à titre personnel jàpp naa boo gisee faatu Fatou Bensouda ancien procureur ubbiwul woon affaire yi deux mille vingt et dama yàlla baal te jéggal je suis peut-être je soupçonne que ni dafa naan xam naa comme que on lui prête des ambitions pour être candidat en Gambie mu xawal soutien wu Macky Sall mais man gëw ma ni il avait déjà assez d'éléments pour ouvrir euh, euh, kii man loolu laa léegi nag. Mhm. procureur bu bees moo fi nekk. qu'est-ce qui se passe dans ce pays mooy depuis pour que CPI dugg am procureur CPI am na droit ubbil boppam procédure. maanaam autosaisine dañ koy autosaisine am am na. Mhm. mën nañ ko saisir par la voie ce qu'on de communication mhm. ku mu neex nga def communication saisir ko pour signaler ko dara moom mooy juger opportunité des poursuites mais dans le cas actuel euh, article 17 bi li mu wax mooy bu dee dafa am ay attaques massives coordonnée systématique mhm. contre une population civile ça va être pour des motifs politiques am ay morts am ay comme ni ñuy def arrestation de masse ba pare le plus important parce que principe subsidiarité lay demee tan que l'État bi nga xam ni moom moo foofu la violation yi am am na une justice bu saisiru de la l'affaire di ko instruire correctement correctement moom mun na ne maa bàyyi ma ma xaar mais depuis deux mille vingt et un déggagu leen ku ñu ubbi. mu nekk donc. am na ay attaques massives et systématiques sur tout le territoire bu viser ab groupe il y eu des morts par balle il y eu utilisation de de nervi gis nga ñoom seen discours ni mu changé ci nervi ils sont passés de te loolu c'est très grave man jàppoon naa. daaneel foofu daaneel foofu ñu dem pause ñu pause ñu jël pause. vas-y daaneel foofu ñu pause donc que ni il y a eu des situations de nervi avec à côté des forces régulières il y a eu des morts amul enquête amul arrestation amul dara. il y a des attaques il y a des arrestations ak lépp aujourd'hui la compétence te boo gisee ñoom ñu dem ci euh, plateau yi di rey seen bopp ak a yuuxu mais bu doon yéen vous êtes serein toog leen xaar si c'est puéril du ridicule toog leen ngeen xaar aujourd'hui des éléments concrets des preuves président de la république bu àddina ban nga gis en année électorale muy commander ay munitions fan lañ gisee présidence de la république tu as le ministère de la défense yow président de la république ministre de l' intérieur am bu dee policier yow yaa commandeel sa bopp. avec mm. des factures nga jënd ay munitions. le président de la république qui achète des munitions. qui paye ça sur des fonds de la présidence. Amadou on va revenir tout à compétence su ces pays. waaw ah, daanaka foofu je pense que pour la première fois gis nañ ko. Mm-hmm. gis nañ ay milices gis nañ ay morts par bal gis nañ l' mm-hmm. de d'ouverture d'enquête donc la compétence de la CPI est fondée et je pense que bientôt